Better people and go um, fu mu xam ngeen ne ñu ngi si nawet si nawet lañ so song bi so song bi ma ngi ko jagleel béykat yi because xam ngeen ne si nawet lañ nekka te xam ngeen ne réewi Gambia su nawet jotee you know lu ñu dee def mooy dañoo dem béyi comme ni ko président bi waxee so this song damaa delloo njëk ah, damaa delloo njukkal yi xam naa ne it's a new song mosu leen koo déglu so just want you to relax stay calm ngeen déglu the song

Survival. survival. sin. It's an issue of the human life. Life. Agriculture is the center. di liggéey di the di the di the sol the sagar the góob the gar dégg dégg is an issue of the human life agriculture is the center of the human survival you pay, so you succeed. Listen, I could have for body, Jerry. see all the boys me, watch a new town, dog, me, the wall again. Amen. God bless the Gambia. Get a boy music. And then you funk a bed cut. waaw ma bëggoon ngeen tajul seen bopp moo time rek euh, awa euh, di kontaan bu baax ci MLK mhm. ñaari track yi neex nañ lool musik kendo bi fu ko dégg rek foog suma yaram tànga waaw man sax suma yaram yi waaw foog naa képp kuy mhm. jigéen war nga see mën a dëgg dëgg si yan wasi loolu <laughs> waaw loolu moom ah, lu am solo la mhm. waaw léegi rek ah, xanaa dañuy bàyyi rek ngeen. waaw MLK. Mhm. Oh. bëgg nañ nga wax ñu tuuti sa korite naka nga ko si gàttal. Um, force dama sant yàlla you know fekkee nañ ko si jaama. you know with the friends you know um, or loved yëpp. you know fekkee nañ ko si jaama you know it was good. Mm. am nañ good time with the friends and everybody sant yàlla daal. Mm. ok ma bëggoon a xam moo la inspire kendoo boobu waaw musu solo waaw wallaahi musu kendoo moom mu ngi toj réew mi <laughs> taasu <laughs> di delloo ju ah, jigéen yi rek because ñun ñëpp nañ ne jigéen yi mënuñ leen a fay you know you lañ leen mën a defal lu demee noonu musu kendoo soo ko seetloo soo soo xoolee vidéo bi mm-hmm. ni ndaw si di cakesee di dem mm-hmm. di nga gis ne loolu it's not just um, it's not just so um, loolu la ko seet sa nga xam ne lii fashion song yi fashion la mën nga ko use in a fashion way mm-hmm. you know ba pare you know mu ngi laa woon daal jigéen bu baax mm-hmm. ak yu bare bëri si biir soo dégloo song bi di nga gis yu bëri ba pare yaa ngi réegal rhythm mm-hmm. afro manding la di nga fa dégg mbala doo mun a understand mu ngi nekk beneen affaire bu garaaw <laughs> ah, <laughs> so kon mbaa di ma ni moo musu kenn doot yàlla buloo ko saal fangoyo baa ke baa <laughs> Wow, MLK eh, man mi nga xam ne man siyaaraat laa few weeks back maa ngi jógee eh, si faam bi yaa ngi nga ne béykat yi waaw waaw doomu la def gis nga Iboy waxu fi dara lu taxaw. ah man daf ma jaaxal ndax góom nga ne ndax kii nduru na la béykat. déedéet waaye wér ko Wow, gisul. Iboy maa ngi liggéey. <laughs> ndax nduru na la béykat waxal rek. waaw fu mu ah, Gambia man dama gis ne fu you know um, nga nekk béykat nekkuloo béykat yëpp foog nga am si skills mm-hmm. because suñ président bi moo ko oote te béy ak mm-hmm. agriculture dafa am njëriñ trop si réew mi yaa understand mm-hmm. ba pare um, béykat yi dañ nekk ñoo xam ne dañ leen dee neglect somehow you know duñ leen dee respect too much loolu moo tax ma génnee this kind of song ba pare dañ toolu si nawet yaa ngi understand because agriculture dafa nekk loo xam daf dee sustain a nation mm-hmm. so a lot of people you mm-hmm. um, know, they don't know uh, amuñ knowledge about agriculture njëriñam si biir réew so lo moo tax ma def this song you know to sensitize the kind of uh, to sensitize the people because si nawet lañ nekk su ko defee ku nekk mun a dellu si béy dëgg la ñëpp duñ mun a béy ak ñi ñeneen ñi xëj na time duñ ko am pour ñëw join but you know ñu promote ko mm-hmm. waaw incha allah MLK ah, dinañ am ah, yeneen jotaay yoo xam ne dinañ toog gën a ah, waxtaan si li nga xam ne tey moom nga ñu indil su suñu korité ndewenal kon dañ lay bàyyi rek bu boobaa comme guddi gi am na ñeneen artistes yu ñoo dugal mm-hmm. ñu gërëm la rek sant la di wax ndewenat yi te yanna na bi ak gën jëm kanam kon mm-hmm. gaa ñi taacu leen moo nga xam ne moom mooy MLK kon nak legui ah, bete kom comme ni malen ko waxé rek ah, suñu special guest artist tonight Koriten Dewenal pap Omar Jack borom Jamano, mun Jamano, Yek Jamano, Ham Jamano, gañi ñi len ma bu baakha baakha ba pap ki nga xamné mom moy pap Omar Jack Why? dañ ma woon lata pap Omar Jack di duga comme mu set up dafa am benen playback bo xamné dinañ ko ci dugal bu boba nak pap Omar Jack yek si mbalax pire mu jox ñu ko guddi gi. ñëw mm-hmm. ñëw ñan nag. waaw dana tàngale léegi kanay ñëw ban playback artist la ñu am. waaw dama bëggoon nag ah, playback gars suñu playback gars jóg fii ci nag. tijaan waaw balaa ah, playback bi tamit leneen hmm? am na ci solo. waaw hmm? Hmm? Euh, euh, ñu ne ku la defal lu baax boo toogee wax ko. waaw ko set si. waaw si boobu. Ah, waaw waaw demal rek demal rek déedéet demal rek. waaw.